qalbi lahu fi itaab al-jism takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru qalbi lahu fi itaab al-jism takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki M Media Group Nourou Darayni ginnaaw buñ sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci bu tedd bi alayhi wa sallam dañ ko jaati bu seyxnaan xatim alayhi akbaru wallahi wa axil xatim di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala fayal ko ñaan si di ñaan si am suñu borom mu taqoor mu yàgg fi lool ba li mu yéene liggéeyal islam moo àggale ko kaw njàttam ci barkeem alquran karim di leen ndokkeel dellu ndokkeel bu baax ci bisu mag yi nga xam ne ci la nekk ci weer yi nga xam ne mooy weer yi sëriñ bi génnoon dem ci tukki bi man ni ñaari jataay sunu émission bi saa dañ koy soppi jëmale ko ci lenn ci waajtaayu bis bi nga xam ne ci lañ nekk ak sonn dëgg-dëgg li nga xam ne moo waraloon bis bi ak borom bis bi li nga xam ne moom la bëgg ak lenn ci li mu bëgg ak lenn ci li mu li bañ euh, jataay bi passé waxoon naan sabab si nga xam ne moo taxoon sëñ bi génn dem ci tukki bi ten waxoon ne ñaari sabab moo ko waral sabab boo xam ne zahir la ak sabab boo xam ne baatin la zahir si waxoon nan ko mooy ànd gi mu ànd ak noonu yi suñu borom te muy nasaan yi ñu génn nag moom jëmam moom bitim réew ne dañ koy sànki ngir bëgg buñ ko sànkee lislaam sànku waaye nag wa yankuruuna wa yankurullah wallahu xayrul maakirin ab jàmm bëgg rek am waaye dëgg dogal moom suñu borom moo ko yor te suñu borom namwut jëmuto bi sànku namwut lislaam itam sànku loolu moo tax seeni pexe yi antuwul euh, loolu mooy sabab ba ci zahir amma baatin bi tam waxu dan ko muy ànd gi nga xam ne ñoom moom la àndaloon àndu àndu tam ñoom lu doon lu dul liggéey la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ramu aw xeetam waaye tam nekk ki nga xam ne ci la lislaam di dégëre sax ba faw ci diwaan ki nga xam ne ci la nekk loolu moo tax mu wax ne yow yawma sabti samina asar li xidmatil muxtaari saawi safar bi muy génn fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ànd ak nasaraan yi lan di jubloon rek mooy liggéey li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li xidmatil muxtaar la wax da xidma bu nag bu mu ba ci biir ba ci biir ci bi ca la ko suñu ko nekkul liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gi tax nga génn am nga garaatu xaadim rasul te mooy àllam li fi sabina bi am na ni xadim si matina léeg nga di kuy wax ne Sëriñ Tuubaa mu tudde boppam xaadim rasul déedéet bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy gi mu koy roy jox ko léppam ba jax ci moom tàkk moom la suñu borom subhanahu wa xool gis na amul kenn ku ko ci dab ci bëggu boobu suñu jox ko garaatu xaadimu rasul loolu mooy allamani rahmani fi sabina bi annani xadimu zil madina waxoon na feneen tam mulkul ali baaxil xadim jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadum wasaanani fi xidri ndax suñu borom mi nga xam ne mooy borom wóor gu màgg gu kawe ki ki nga xam ne mooy ak xaddiim mu fi dara nekk bur moo fi jiitu lépp al moo fi es ko lépp jugee tam moom moo fi es yàlla jàngale as naa xaddiim def na ma ma bokk ci wala ma doon ci ñi nga xam ne ñu gën a kawe ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te liggéey ba nag du dul yàq ndax wasaane ñi xidari andika itam jublu ci dara lu dul lu dul jëmi wa taala ni mu ca xasida ga ma al abrari ina wa zanna al ida anni hunaka asiru ma al lillahi bin wa ma li da xayrillahi awdu masir ànd gi mu ànd ak nasaraan yi jàppe ko ne moom ku ñu jàppale di ko yóbbu ca di ko di ko yóbbu di ko sànk mooy di ko yóbbu périsa di ko sànk waaye nag fekk na boobu moom mi ngi ànd ak gaa yu baax yi te mooy al abraar asiru maam abraar yi xiina asiru wa zanna ayta anni hunaka asiru boo xoolee ci saayir da nga gis seen nasaraan yi la àndal waaye baatin ba mi ngi ànd ak gaa yu baax yi loolu moo tax moo ne dem ànd gi mu ànd ak ñoom itam jublu ci lenn lu dul jëmi suñu borom subhanahu wa taala àndut ak ngir bëgg ci ñoom ay daraja wala bëgg luñ ko jox wala ragal leen wala déedéet masiri ma al axyaari lillahi binnabi wa ma di li xayrillahi awdu masir mi ngi ànd ak gaa yu baax yi dem waaye ci baatin waaye ànd ak noon ci saaxir ànd gi mu ànd ak noon ci saaxir du saa ngi dina ragal wala mu am ci lu ma xemmeemteem ci xemmeemteem ci ñoom tamit waaye jëmmi suñu borom rek lay wut moo tax mu ànd ak ñun ci zaahir waaye noon yi ànd ak nit yàlla yi ci baatin loolu mooy masiri ma al axyaari lillahi bin dem gi mu dem ànd nasaraan yi moom dafa doon ko xam ne suñu borom ko waajal ngir mboolem mbindeef yi rawatina mboolem jullit ñi waaye rawatina mboolem taalibe yi waaye njariñ la loo xam ne dafa wax ne wallaahu yansuru lii wal xalq wal xalqu tatbau lii fil barri wal bahri bi nasin bil darar moom njariñ la lu am lu waaye nag ñeen mboolem mbindeef yi loolu bokk na ci bi mu dem ba dem yóbbal bi nga xam ne tam moom la na ma indi dafa bëgg bindeef yëpp bokk si def yëpp jarul loolu moo tax mu wax ne diikun bikun samadan wa jaal masiri sa jawfan fara lil wara mislan la xaayin lil wara la wax dama ne yow suñ nanga ma defal yow mi nga xam ne woy ki nga xam ne boo dee kun mu kun inna maalu yow mi nga xam ne boo ne boo namee dara kun mu kun kon na def sama dox bii mooy dox am ndak nasaraan yi ci saahir ne nang ko des mu nekk jawfat fara bil wara jawfat fara leen ñi lenn ci euh, ñu koy firi mooy ki nga xam ne dafa génn këram dem di rëbbi waaye bi mu rëbbee jàpp na rab boo xam ne ñi mu bàyyi woon ci kër gi di rëbbi bu dikkee ñoom ñëpp mën nañ ca xiiwlu barab bi des loolu mooy jawfat fara loolu moo tax may wax ne diikun bikun sarmadan wajaal masiri sa jawfat faralil wara misal nahari del wax ne ijaal rujuuci ila xawmi saadatina wal takfina yowma jamail xalqi na yow suñu borom nag ma defal sama tukki bi su ma delluwaatee ca sama nit mu doon ci ñoom ak texe ëllëg yowmal qiyaam boo dajalee mboolem bindee fii am ci ñoo ci war a set ñu jëm sawara ñun ña ngay musal ca sawara woowee man maag sama nit nan man ca bokk ijaal rujuu'i ila xawmi saadatana wal takfina yowma jam'il xalqi niiraana kon mbokk yi loolu lenn la ci li nga xam ne sabab la ci li nga xam ne moo taxoon sëriñ bi génn ak mébét yi nga xam ne moom la amoon mébét ku tànn am ko suñu borom te suñu borom nungul ko lépp waaye tam bis yu bis bu mel nii buy jikkee dana yell itam ne ni ñu xam la dëgg-dëgg suñu mooy kan leen mën a xam ne ci moom ak jubluwaayam ci tukki bi ak jubluwaayam ak dëgg-dëgg digganteem ak boromam digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbindeef waaye nag dana ci am solo lool ñu xam dëgg-dëgg lan la digal taalib yi ko dëgg-dëgg melokaanu taalib bi wala melokaanu ak jullit dëgg-dëgg naka lay meloo loolu moo tax ñu indi benn benn tarshid boo xam ne daf ko jagleloon ak ko dëkkoon dénk Seex Masamba Mbàkke nga xam ne dénkaat yooyu rek léeg-léeg nga dégg ñuy wax ne sëñ bi moo dénk moo dénk soxna Penda Jom nangam walla moo dénk sëñ Masamba nangam wala Seex Mouhamadou Fadel nangam walla sëñ Ndaam Abdourahman Lo wala yu ko nuru dénkaane yooyu boo ko déggee du saaga ni dénkaane bi sëriñ bi doo ko dénk jëmu ji rek ne nii nga war a meloo nii nga nii nga war a melowoo waaye day tekki ne ñii la ab jullit dëgg dëgg ko war a kon boo ko déggee rek bul jàpp ne dénkaane bi diw moom moo ko moom ko jagoo ko ko ko dénk jaarale ko ci moom ne ko nii la ab meloo kon dénkaane boo ko déggee jàpp ko jëfe lam ca wax lam ci dénk ci kam ci dénk garat bu mu jamono ak rek insha allahu taala suñu borom mën la àgg ci garat boobu loolu moo tax ñu andi benn dénkare boo xam ne def ko dénkoon ab tarsiid la eh, jagleel ko Seex Masamba Mbàkke loolu moo tax mu waxoon Seex Masamba Mbàkke ne ko laazim muxaalatatu man laa yuxfalu wajtanibil lazi fuaadu yaxfulu yow mu samba maa ngi lay dénk maa ngi lay dénk ngay àndandoo ñi nga xam ni seeni xol du sàggan mukk ci jublu suñu borom subhanahu wa taala seeni ci neenal seen diggante ak seen borom subhanahu wa taala waaye nga moytandiku ña nga xam ne seeni xol dafa sàggan ci jublu suñu borom subhanahu wa taala wala mooy laazim muxaalatatu man laa yuqbalu wàccani bin lesjin fuaadu yàffulu dellu na ko wax ko ne ko xus mastataata min xiyaami layli fa innahu aadatu ahli nayli maa ngi lay dénk nga am ab cër mooy nga am looy jàpp lu mu néew néew di ko taxaw guddi di naafila la layli bokk si li nga xam ne lu am am solo la ci ak jullit mu bañ ndax fa naka xiyaamu layli aadatu ahli mooy baaxu ñi nga xam ne borom mu may leen ci suñ borom si diggante ak suñ borom subhanahu wa taala ñi nga xam ne borom mi cër leen borom may leen ci seen diggante ak seen borom taxaw guddi di la donte dafa néew ba nekk sax ñaar rakka bañ koo nenal nee na loolu muy seen aada te wax ne ko wax ko ne ko wa xaysu ma daaka daaifan zuri xabla al ijabati tabus bi an aji woote saay bu woote bul jikk-jikk rek dem wuyu jiko déedéet na nga xaar ba settantal ba xool lan lay wooye ndax njariñ la wala ndax lor la bu ca njariñ nekkee nga dem wuyu jiko bu ca lor nekkee nga bañ koo wuyu ci loolu mooy waxay suma daaka daaifan zuri qabla al-ijaabati tabuus bil nazari del wax ku ne ko ajib li daa'i l-xayri watruki siwaa wala tamil liman yamiilu lil hawa ne ko nanga ki nga xam ne daf lay woo ci aw yiw waaye nag bul wuy ki nga xam ne daf lay woo di la jëngaloo di jëmi ci leneen lu dul aw yiw ajib li daa'i l-xayri watruki siwaa wala tamil liman yamilu li hawa képp ku la woo nga xam ne ci aw yiw la lay woo nee na nga ko wuy waaye képp ku lay woo nga xam ne safaanu yiw la lay woo bul jàng mukk jëm ca kooka del waxu ne ko wansaf li kulli man raayta baada an turaaya sarae bi xalbi itmaan na nga lay biir képp koo xam ne gis nga ko ginnaaw bi nga sàmmoonteeg sa cër ci sariya ginnaaw bi nga tege sa tànk ci sariya yow itam képp koo gis rek na nga ko jéem a laay biir te jëm yoon kan tax addiinul nasiha wax ku ne ko watub mataban saadiqan lil haadi fi sirri wal alani sa ijtihaadi mu ma sami yow ma sàmba na nga tuub tuub gu sell jëm ci suyoon subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy aji gindee waaye na nga def ko ci lu nëbbu ak ci lu feeñ kon loolu am dénkaane la boo xam ne sëñ bi mi ngi ko bindoon doon ci dénk sëñ Massamba Mbàkke mu doon dénkaane boo xam ne dénkaane bu matale la bu jara bàyyi xel la boo xam ne ni ma ko waxee léegi rek du càggante sëñ bi daf koo dénk Massamba rek ne ko nii yow rek yaa ko war a waaye déedéet ndénkaan yi boo ci gis rek daf ko joxañ ne ko ak jullit dëgg digg wala ab taalibe digg ki nga xam ne dem na ba ak jullitam mat ñii la war a nii la war a melokaanoo waaye wërte melokaano noonu loolu moo tax mu dénk ko ne ko nanga di jaxasoo ñi nga xam ne duñu sàggan mukk seen diggante ak suñu borom waaye na ngay moytu saxaaru ñooña mooy ñi nga xam ne dañoo saxaar dañoo sàggan seen diggante ak seen borom del wax ko ne ko nanga nanga def sa kémp laaj kattan ci di taxaw guddi di naafil bañ a tëdd guddi ga guddi ga jaaf tëdd ko si guddi ga naafilu ndax naa ko guddi lu am am solo la lu bari ay ngëneel la dina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko naafilu naafilu yoor yoor ak naafilu guddi lan moo si gën mu ne ni sarax bu nëbbu gëni sarax bu feeñ noonu la naafilu guddi gëni la bëccëg ak gonte naafilu bëccëg bari na ay ngëneel lool loolu moo tax mu wax ne ko na ngay jóg guddi di naafilu ndax naafila bu baax la ci ñi nga xam ne mi cër lan ci digg seen diggante ak suñu borom waaye wax ko ne ko fu la aji wootee fu mu la wooyee ba nga ko wuy na nga settantal la woo ba lan la parce que lu baax la nga def wuy ji ko bu dee wax ko ko ku la woo ci aw ci aw yiw rek na ko wuy ji waaye ku la woo ci safaanu wuy bul jàng mukk jëm ci moom waaye tam na ngay laay biir ginnaaw boo sàmmoonte teg sa tànk ci sariatul Mustafa bu bare képp koo ci gis man koo laay biir ca sariya bi nu mu teg ca tànkam nang ko ca laay biir jëmmi sa borom da ngay tuub tuub bu sell ngir jëmmi suñ borom subhanahu wa taala li nga xam ne mooy aji gindee ji waaye nag ci nga def ko ci lu nëbbu def ci lu feeñ da nga nekk ku farlu loolu ab tarshid la boo xam ne Sëriñ Tuubaa boo ko bindoon doon ci dénk Seex Ahmadu Samba Mbàkke mel ni kenn ñun ñëpp ne kenn ku ci nekk rek mën na ci am ab cër insha allah taala kon loolu mooy sunu jataay tey ci waajtaayu màggal ci zaadu nisaa il mustafaa insha allah taala di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala defal nu ak digg ak topp ci ba si xanaan fatim salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu وفي فضائل آي مفصلة قد أنزلت وأحاديث وأخبار waata nabiya bi amwaalin wa ankaaru bintan walam yaaru sakun wa inkaaru lam yasrabi alxamra lam yasjud ila sanamin walwalidaani maa al awlaadi abraaru amma bu xabsin alfaaruq sayiduna